waa waaw Cheikh Cheikh Souhaibou Kane la membre fondateur APR Yaakaar ah, àndoon Macky Sall xeex 23 juin xeex xeex ba teg fi Macky Sall su gén nag gàcce la ñu am ci loola waaye Macky Sall dañuy wax ne gat sa gat sa ah, il faut ñu laalante ah, Macky Sall bu am jàmm ci moom bu Sénégal am jàmm ci moom il faut ñu li mu wax moom la senegal yi déglu te moom ci ndigal la ñuy laaj ci moom mooy gat sa gat parce que Macky Sall li mu Sonko Sénégal yépp xam na du dëgg du yoon Ousmane Sonko nit ku baax la ku tedd la ku lavi la ku ku mën a muñ la mbokkam yëpp ñu ngi ci biir kaso bi ku wax Ousmane Sonko la àndal Macky Sall du jàpp la dugal ci biir kaso loolu nag dañ mënta nangooti Macky Sall il faut ñu laalante ak moom il faut ñu ñaa ñaafa ak moom ba li ñu ñu ma mën ko am suñu réew bi parce que Macky Sall moomu Sénégal bàyyi moom ko yaayu moom ko suñu meeting bi nag amul lenn loo xam ne sax wàññi nañ ko ci luñ ci yokkut duñ ko wàññi incha allah dina am ñi nga xam ne président bu ñëwee dinañ ko kattanu ànd ak moom lépp lu bëgg ci biir département bi dinañ ko gunge bu gungeem jeex wàññi ko dem ñib Macky nag ñi ngi ko xam ne ko Sonko sarxe wut maye wut te ku ko laal dinañ la ci sa kaw suñ bakkan bi lañ ci rek billahi wallahi wa taalahi Ousmane Sonko yaa na wa man Cheikh Sèye man maay wax bañu nag dara na lañ ci bëgg amul lenn luñ ci bañ du lenn nag manqué wuñu dara manqué wuñu dara ñun am nañ lépp même Ousmane Sonko daf ñoo jaral loo xam ne ñaare amul benn mbir def buñu ko jaral Ousmane ah Sonko moo ñu jaral buñu xëyee suba ba ngoon di dox ci ay ay waawam di ay gétam parce que Ousmane Sonko buñu xoolee ba Sénégal ko bàyyi buñ ñëpp ñoom tëdd nelaw ah te loolu loolu nag buñu ko may Macky Sall buñ ko may tey suñ ko may ànd billahi wallahi wa taala Ousmane Sonko kenn du ko laal man fii man fii man naay wax billahi kenn du ko laal kenn du ko laal est-ce que jot ngeen a déggante ak moom ci décision préfet incha allah dina ñëw parce que réew